jappalé japp lañ ci lu bëri bëri bëri ci ay école ci ay bourse scolaire yo xam daf ko jox élève yi pour sen jang gëna bax waye ci ay réflexion ay classe yeen ñi dëkk aan tek ngeen sen bëtt waye bu su tay tam daanaka lepp li ci war pour bés bi jaar yoon monsieur le maire de Hann monsieur Babacar Mbeng mo moo ci dugal loxom motax tax bi rafet ni donc ngeen santal ni bu gërëm ko bu baaxa baaxa baax baax ma teew fi tey man IEF Grand Dakar man maa ngi tudd Ndeye Selby Badiane maa ngi fi teew ak le représentant de si l' inspecteur d' académie muy inspecteur Ousmane Ngom moo nekk sama càmmoñ Ousmane dalal jàmm teew fi tam ak sama comptable matière ndax ma sañoon tamit équipe IEF yëpp ñoom ñëpp ñooy ñëw mais comme ni ngeen ko xamee rek donc euh, ci ay permanence la ñu nekk dafa am équipe buy ñëw te ñun ñëpp bu ñëwee kon service ba du dox loolu moo waral ma ànd ak te ki nga xam ne Bandiou Ndiaye.

le mot de bienvenue am na kenn ci yéen parce que normalement le maire moom moo waroon joxe le mot de bienvenue mais dafa melni waxtan len ci bir ba tan kenn ci yéen pour mu joxe le mot de bienvenue donc kooku la ñuy jox kàddu gi pour mu dalal ñun. kookan la ñu mu Agnès euh, Agnès xamna ko machallah Agnès kon Agnès cadeau gaa ngi ni bëggoon nañu tam bala ñuy commencé kenn ci suñu kilifa yi fi nekk ñu def ñaan commencé ak ci bismillah yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin joxal ñu màggal ni def ñaan ba pare ñu yeggal ndax di len dalal jamm yeen di jóge iya di madam Sarr monsieur Mbay monsieur Ngom ak monsieur Njaay di len dalal jamm ci commune an belle ñun ñi di ayom fi di ay kat di dem iya. ak euh, IEF bu Grand Dakar ñun xam nañu yéen fi ngeen ñu teg madame Sarr mii du jëmmam ji moo tax mais daf ñoo fonk ñun daf ñoo fonk fonk euh, commune de Hann bel moo tax commune ya muy maye benn école benn classe commune de Hann bel ñu may leen juróomi classe loolu ñoom day leen ci sant di leen gërëm bu loolu weesoo ñuy gërëm waa iya yaa lu ñuy mën a organiser ak lu mu metti metti ak lu mu jamp-jamp dañ ñuy woo boole ñu si man ak maam nday mii ak ñoom ay siti seen suñu groupe bi staff bi dañ ñuy woo boole ñu seen organisation ba si mujj gi euh, projet bi fi ñëwoon organisation bi yëpp ñun lañ ko tegoon suñu loxo kon bon loolu ñun mënuñu leen ko fay dañ leen koy sant di leen gërëm di leen ñaanal nag yàlla monsieur le maire commune Hann Bel-Air muy Babacar Mbengue seetaanuñu benn yoon xëy na ñàkk toog moo tax sax ak ñàkk ñu am audience ak moom moo tax sunu alphabétisation bi demee nii mais da si daan jàpp li jëm si cahier crayon bi gomme sax daf ñu ko daan jox élèves yi ñu distribuer leen ko ñoom ñuy jàng waaw léegi tamit waa euh, IEF dañuy am dañuy wax alhamdulilah sant bu am commencement wante amul fu muy yem di la sant madame Sarr sant bu amul benn àpp di leen ni nag ndax ñun bëggatuñu tamit comme ni ñu doon def mu continuer noonu jàng ba programme bi jeex ñu arrêté ko ñun loolu ñun ñii di jàngalekat yi ñun ñii di yombalkat yi ñun loolu nangootuñ ko réunion nañ ko ba pare ñun on continue ndax bu ñu bàyyee élèves yi toog dañuy fàtte ndax yi si ëpp ay niveau zéro la ñuy doon bu ñu ñëwee commencé di bind am tuuti xam-xam dem bay mën a xool seen portable di ràññee araf yi demaat toog neuf mois après nga dem toog da ngay fàtte ñun ñu bëgg a continuer ko ñun à notre niveau continuer jël ko di leen jàngal te ñii ma leen di sant di leen gërëm madame saa ñii ay jigéen ñu am jom lañu ndax bu leen neexoon ni duñu dem ci classe yi di jàng ndax seen doom yi dañuy jàng ñoom ñu bëgg di jàng am na ñi nga xamante sax ay reetaan lañ ko def wante nag jàng dafay ni dafa baax si nit li ngay xam si jàng bi benn araf boo ci xam rek avancement la si yow balaa nga koy xam nga jóge fii tukki wala yow nga génn te jàng bi dañ koy boole olofal bi ak français bi yooyu yëpp lañ leen di boole di leen ko jàngal xëy na yéen olofal bi rek ngeen ñu sant wante ñun dañ si raxaale français bi waaw am na tamit ñeneen ñu war a ñëw Je ay conseillère municipal au niveau de la mairie Nous tam bëgg classe pour ndax ñu bëri dañ si nekk te di leen di leen gërëm di wax tamit doléance leen di nuyu ñëpp retard démarrage activité surtout ñu auprès de auprès de l'IA aussi ñu ngi bu baax a baax baax man nak damay wax au nom du maire et de son conseil municipal parce que ñom xam xamnañ xam euh soleil alphabétisation ba biñuy signé convention bi ak wa SIF dañ na won sax duñ ko def mais amna ño ñoo xamante ne rap rappeler li alphabétisation amé ñaar ñu yóbbu ko conseil municipal xool article par article point par point ne lii amuñu dara luñ ci wax xanaa kay ñu adopté ko rek ba noonu lañ ko adopté signé convention bi donc loolu pour rek wane waa mairie solo bi ñu jox euh, alphabétisation yéen jigéen ñi nag ñun gis nañ seen taxawaay euh, seen taxawaay rafet na te xam nañ ne yéen tamit bëgg ngeen jàng donc jàppale rek moo ñu war muy ñun muy wa ya muy waa IEF eh, le maire nak néné comme li Agnès wax sank duñ len sétane gën di tok bay désapprendre dédé même bu classe yi tejé dinañ len jàppale pour yeen gën mëna continuer alphabétisation te inshallah bientôt dina len recevoir tamit pour ñu harmoniser seet lan moo ci war ñu def ko pour loolu am euh, bu loolu weesoo maire ak son conseil municipal tamit ñu ngi remercier bu baax waa IA ak waa IF parce que tamit euh, maire yi euh, sous sous préfecture bu Grand Dakar rëy na rëy boo xamante ne buñ si tànnee maire Hann Bel-Air buñ ci tànnee Hann bel jox leen si 5 classe donc lolu wané né ñom amna fu ñu tej te amna tamit lu ñu yaakar ci ñun doon ñun ñu décevoir muy ñun au niveau de la mairie muy muy yeen ñi nga xamante tamit yeen yéenay djublu si alphabétisation en tout cas duma guddal mais jàppaleen na rek mairie bi mu leen bi mu leen ñëpp gërëm wa EF nee mu ngi seen ginnaw ñew leen ngeen wax ko li ngeen bëgg incha allah mu defaral leen ko léegi fii laay fii laay yemagum ba ci kanam ma dolli si ay kàddu bu soobee yàlla. man maa fi yéen laa fi nekkal tey <laughs> eh, dama kontaan lool lool bi ma nekk ak yéen xam nga nekk jigéen yombul waaye bu ñu la defee jigéen dañuy xaar lu bare ci yow sas yu bare daf ñu lonk suñu mbagg. waaye yëpp ñu nangu ko te yàlla tax tey jii ñu daje fii ngir fësal li nga xam ne mooy euh, journée phare maanaam xam nga dañ nekk ci semaine l'alphabétisation bi nga xam dafa tàmbale la 8 ñu war koo clôturer suba le 14 léegi inspecteur d'académie demande woon à ce que IEF Grand Dakar organise benn journée phare ñun ñu tànn leen mairie Hann Bel-Air ndax tout simplement yéen yéen a am 5 classe alpha yeneen mairie amuñu ko te damay dinaa terminer sax par pour ñaan yeneen mairie ñu def comme yéen ubbi ay classe alpha ndax nag ñëpp ko soxla jigéen ñi ñi nekk ci gox yëpp soxla nañ li ngeen am tey donc macha allah euh, li ñu fi dajale tey mooy fësal màggal bés bi màggal bés bi ci thème bi nga xam ne moom lañ choisir ren thème bi nekk mooy promouvoir ne nañ l'alphabétisation maanaam euh, jox gëdd gën a jox gëdd li mooy jàng ak jàngal suñu kàllaama euh, fexe ba

comme comme Sénégal dañu bëgg seen loxo nekk ci biir te yaakaar naa yéen pare ngeen pour def loolu donc euh, macha allah rabbi <laughs> donc dañuy ñaan yàlla rek vraiment euh, ngeen gën a ñu gën leen a jàppale waaye ñu gën a ñaax tam yeneen maire yi ñu gën a def comme mairie Hann Bel-Air vraiment yéen a ngi ci biir léegi damay jox kàddu ki nga xam ne mooy représentant IA instructeur d'académie inspect voilà ñu nekk yëpp mhm. di nuyu suñu monsieur le maire Babacar Mbengue di nuyu màgget fay yow mi ñuy représenté fii di nuyu suñu suñu yombalkat yi <laughs> di nuyu itam suñu superviseur kii ñoo di ñu superviser ñu ngi koy nuyu bu baax di leen nuyu surtout yéen <laughs> lii waroon na raw accueil bi waroon na raw nii di di sant yàlla parce que di gërëm itam suñu yombalkat yi jëlee nañ si. man mënuma woon bind ak samay morom mais léegi damay bind lettre di def sama calcul <laughs> di def sama calcul en olof di xay baal ma xay <laughs> di di am naa si jële naa si lu bari di si jàngale yi tamit samay doom parce que tey boo defee boo bindee olofal ñoom duñ ko xam mais damay concentré wu di leen jàngal ba dëkkandoo yi dañuy am fierté pour ñëw jàng ci classe yi waaw jëlee nañ si daal njëriñ ñu ñëw si man xaw ma woon ni ñuy defaree jus kii bi tamit perse bi xaw ma woon ni ñu koy defaree mais jëree naa si xam-xam ni ñuy defaree timmaji jus sunguf bi jus bi yi tamit jus bisaab jinjeer yépp concombre betterave carotte nebedaay yépp dañ koy def te buñ ko defee fi du taxaw sata seede yi am na solo te lii la ñuy xaar ci kenn képp ku ci yéen euh, boo jàngee faw mu des sa xel donc bu desee sa xel nga mën ko loolu nga jàng nga mën ko jëfandikoo yóbbu ko sa kër fexe ba ñeneen yeneen dëkkandoo di ko jë di ko jëfandikoo mais loolu rek la ñuy xaar sénégalais loolu rek la ñuy xaar sénégalais <laughs> macha allah donc euh, macha allah fi mu nekk nii damay jox deuxième deuxième témoignage di jàmm yàlla ak ma ne yàlla na ko yàlla wàcc si yéen wàcce ko si njaboot gi waaye wàccee ko sunu Sénégal gi jàmm sax fi dàq di leen gërëm ci jotaay bii nga xam ne ñoo ngeen teew ko fii tey ci Hann bel Eh, di waa iyaa e ñu ñëw fi tey jii ñu leen di ziar di leen tatagal di leen yéegal seen yéeguwaay bu baax a baax waaye di gërëm tamit ki nga xam ne mooy sunu monsieur le maire ñu ngi koy gërëm di ko jaajëfal ci taxawaay bu rëy bii moo xam ne defal na ko waa Hann Bel-Air wax nga ko sa biir wax ci wàllu bourse yeeg yëpp ñu ngi koy jaajëfal waaye di gërëm tamit sunu eh, sunu doyen bi fi toog tamit ki nga xam ne moom wax dëgg yàlla ku ñàkk ki ñaan la muy musa Faye ñu ngi koy gërëm di ko ziar. waye di nuyu suñu badjan gox yi ki nga xamne moy Adja Maam day ñu koy ziar Adja Agnès Adja euh, maam euh, ay seen ñi nga xamne ñom ñoo taxawé gox bi am bel di liggéey liggéey bu rafet bi ci jigéen ñi pour jigéen ñi baña nek ya fous di gor di bay si waar waxuñu rek jigéen nay tok yam ci kër ga di togo ko yàq waye jigéen dafa wara xam nan lay togué si biir kërëm nan lay jangalé njabotam nan lay yaree njabotam waye nan lay togué ci biir société di leen gërëm di leen santa ndax ni ko soxna si waxee rek jàngee nañ fi li nga xam ne moom mooy jus jus mooy nebedaay karoot euh, xamuñu woon nu ñu koy defaree carotte bi nga xam ne dañu koy jaxasee clémentine bi lu neex la du doyee sax ci koñ bi timmage yi nga xam ne ko bu nee bion mais bion bi nga xam ne dañ koo jëmbat defaree ay timmage ñu defar ko ba mu forme ko bu nekk timmage loolu defe naa ku la ko jàngal amoo fayam wax nga ko sa biir wax nañu war di jàng di gëstu jigéen ñi bu ñu yaakaar dañuy toog si kër gi di togg ak di yàq ba tu bi sama, dapat dafa wax ni jang farata la ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen si jaajëfal bu salam si encore sama mak, mi nga ne su ma yebaloon sax ma ñëw teewlu ko fi mais ke xeebul dara parce que mënoon nañ dem ci IEF sen charge du leen permettre ñu teew ci yu melni nii waaye dañ ko xam ci farlu. deux heures laa ko woo mu ne ma ah deux heures trente de bëgg naa mu fekk mu foofu suñu oto yi mu ñu jàll mu taxaw yéeg es euh, passerelle terre bi moom lañ jël jël ticket mu fay lépp ñu yéeg wàcc jël terre bi wàcc fii mu fay taxi ñu ñëw ba fii ñu ngi fi yegg si avant quinze heures parce que bëggul ñëw ngeen di ko xaar te loolu raar na ci kilifa. fi ñu toll ak jamono bi léegi boo amee ndoomul tànk rek dañu war a toog ba tàyyi di la xaar waaye moom yaakaar naa ne jox nañu modèle jox nañu leçon euh, su ko defee rek ñuy gërëm monsieur le maire ci taxawaay bi ñu taxaw ci bés bi man rencontré naa ko ci table de concertation yi yow nee woon na ñetti fan wala ñaar yoo xam ne dafa teewal nit wane engagement te engagement yooyu mooy lii rek am lu xel xew ci wàllu njàng ak njàngale parce que alphabétisation njàng la ak njàngale mu dugal ci loxoom dugal ci àllam dugal ci baataam yónnee ñëpp xam nañ ni ñii yëpp am na yeneen activité mais vraiment ñu ngi koy remercier ci apport bi muy def ci wàllu njàngale ci encore xel bi muy andi parce que du apport kese mu ñuy xelal di ñuy wax jafe-jafe réew mi ci euh, njàng mi ci wàllu Hann bel à chaque fois IF da koy jot motax aussi euh ñu am payam dañ koy ñaanal rek yal yalla ah, yagal ko fi yalla yalla yombal euh, ndongo ndomu tank bi n'est-ce pas ba mu def un bon mandat inshallah donc euh, monsieur Faye euh, ñu ngi lay yóbbante ngërëmalu IA monsieur le maire

def nañ ci ay formation au niveau de l'IA man dama yému ci sen engagement ak sen pas-pas té lolu euh, nous avons 19 communes département Dakar IA a 19 communes lañ am 5 classes sur 17 Vous ku nekk bu avez 5 19 fois 20 de 5 fois 20 ça fait presque 200 mais il y a un Bel-Air à lui seul il a lu presque 30 des classes d'alphabétisation fonctionnelle. fonctionnelle qui ci ay chiffres day C'est un takkuwaay parce que un chiffre ñuy inventé inventés. sont des classes que il y a nga superviseurs superviseur ont xool classes. classe bi mi ngi nii aussi war na ne pas des classes que xam ne da ngay ñëw gis vraiment ñu ngi fait seen seen de seen pas-pas ak seen engagement am ngeen fi wax ngeen fi lu am solo mooy même bu état bi arrêté parce que école moom day tëj yéen jël ngeen engagement avec monsieur le maire ngeen continuer xam nga xam nga loolu li muy wane mooy yéen bu ñu leen jàppalee tuuti rek affaire bi day law ba faw loolu mooy la wax la pérennisation de pérennisation dafa nekk jafe-jafe ci suñu wàllu koom comme sax jëmbat benn Ben mu law ba faw loolu moo ñu jafe te loolu yéen da ngeen ci taxaw moo aussi je crois que au nom de l'inspecteur d'académie Euh, c'est une initiative bo xamné ne waruñu leen bàyyi ci loolu rek ne ngeen mën ngeen demal seen dañ leen wara gëna accompagner donc c'est très important euh, monsieur madame l'inspectrice de de l'éducation de la formation de de Grand Dakar am aussi cadre yu ma fi dégg yo. yoo xam dafa recouper temu temu ren bi parce que wax na mu transition un monde en transition transition moy nga nek fi wara a dem fenen. Bo nekkee fi wara a dem fenen day ànd ak jafé jafe naka lañuy def le monde en transition bi ñu monde boo xam changer à chaque fois parce que transition changement la le CI dem CP le maternelle dem élémentaire jógee euh, université dem fen donc loolu c'est des transitions Et si nous faisons ñu compétences, jox euh, euh, pour que ce monde en transition là jigéen ñi wax nañ fi ne ngeen jóge ci kuy wéru def transition dem ci ko xamné dañuy wéru ci yow li ci dess moy engagement mën nañ wax né buñ démé ci kilifa a commencer par par euh, madame Lief dinañ gëna accompagner les classes alpha de la commune de Hann Bel-Air dinañu fexe ba lu am IA am IF balaa kenn di am incha allah yéen ngeen jot parce que aussi euh, nit moom mënoo jël ki nga xam ne day jëf nga teg ci sa bët nga jéggi ko dem feneen di jox ñeneen te vraiment man dama ne woon sax tey on va commencer à 17h parce que ailleurs aussi feneen dañuy commencer 17h 18h di xaar mais malgré que ñun teel nañoo ñëw. dañoo ñëw am ñu fekk ci bunt bi yàggul dara monsieur Faye ñëw ñi leen ñëw ba salle bi fees te madame Lief laa di da ngeen bàyyi seen jiite bàyyi seen i kër xam ne lii kat xam-xam la gis nga xam-xam tànk xam-xam taxawul fépp ci réew mi koom-koom mënul taxaw am am mënul taxaw te loolu vraiment les facilitatrices l'ont compris très tôt euh, li gis euh, poème bi madame lim wax lettre parce que bind lettre aussi compétence la un ensemble de compétences cela veut dire que takku moom am fi engagement engagement amna fi euh, je vous remercie ngeen ñaanal ko aussi demoon aji vraiment ñuy ñaan yàlla yalla ñaan nangu ñaan bi may ko gudd fan woyofal yen wi n'est-ce pas ñun mom amuñ luñ ko wax sincèrement nous sommes très contents waaw mu après mooy tëj ñaan bi moom moom mooy tëj. yéen jigéen ñi waa Hann Bel-Air yéen di ngeen jot seen wàll yéen ay jëkk jot seen wàll incha allah loolu beneen tam bi beneen point bi mu wax mooy lu am solo maanaam transition ngeen jóge ci jigéen joo xam ne jàngul tey ngeen toog ba mënal seen bopp loolu dañ koy sant yàlla waaye dañ koy sant itam seen farlu ñoom inspecteur xam nga ku toog benn place jéemoo dara demoo fenn doo xam dara pour xam faw nga def ay jéego ndimbal na ca fekk loxoy loxoy borom te yéen ay jigéen ñu farlu ngeen macha allah lii ma fi dégg lii ma fi gis dèjà ni ñu ñëwee rek man xam naa ne ku ci nekk bàyyi na lu bare këram bàyyi na itte yu bëri fas yéen ñëw jàkkaarloo ak ñun ndax itte donc loolu dañ koy rafet bu baax a baax beneen point bi mooy euh, fi nga xam ne foofu la ñu nekkoon maanaam di xaar ku leen jox loolu dafay fàttali benn plante rampante am na benn euh, plante rampante boo xam ñu koy tuddee le gui en français j'ai eu il le gui plante parasite manam euh, plante la bo xamné il elle vit toujours au dépend d'un arbre soko ko daggee rek garab plante bi da fay dé kooku ñaanu yalla nek ko kooku bu ko kenn nango nek té ñing koy féetale ñom ñom ñoom la ñu fi nek moy ñi nga xam duñu fay impôt xam nga ku ragal fay impôt dañ na <laughs> fayoo dé way sa nawle mu ngi fay té yow yaa ngi profité ci fayam kon yow parasite nga donc nañu fexe nangoo bañ a nekk

donc li ngeen mën nag léegi faw ñu koy utiliser di ko di ko di ko di ko mos njëriñ bi aussi ngeen yóbbu ko seen seen biir kër gi incha allah am na solo am na solo lool lool lool macha allah. Siru Ngom ndax alphabétisation bu duggee biir Yaraax ba ñuy am ay classe di jàngale yàlla ak Basiru Ngom moo tax ndax mooy bind projet Basiru Ngom Basiru Ngom moo moo président des handicapés waaw moo yore siife siife waa waaw moom day bind projet mu baax ñu accepteel ko ko mu ñëw bokk kook waa yaraax kon bon kooku ñun amuñu payam yenn saa yi sax dañuy bëgg a def dara formation walla dara amuñu day dindi ci poosam jox ñu ñu def moom dafa bëgg nit ku mën dafa bëgg nit kuy yëngatu ci dara kon moom kooku tey du ñu fi ñëw fii ba pare te moom tey dafa waroon ñëw wante dafa am ñeneen beneen kii bu mu dem pour jële ay diplôme looloo tax tey teew fi ñu koy sant di ko gërëm gërëm ba nga xamante ne amul àpp bas dinañu subaal ñu ngoonal taal otom yàq essence am yóbbu ñu fu ne di ñu wutal ay formation di ñu wutal lu ne di ñu indil formation bi mu ñu mujjee may savonnerie la parc lañ ko doon defee waa ñoo ñu ko mayoon dañ ñoo defal formation bu pare may ñu bagage yëpp pour ñu continuer di liggéey kon bon kooku ñun amuñu payam xale yi nag ñii duñ leen dañ leen di bàyyeeg yàlla waaye xam ni dañ leen di bàyyeeg yàlla ndax ku si nekk da ngay tëj sa kër ak sa njaboot bàyyi sa jëkkër ak sa lépp ñëw si jàng bi ni ñun faalewuñu kenn ndax ñooy mënal suñu bopp waaw waaw def nañu nag formation yi fii presque bi si ëpp yëpp def nañ ko léegi ñun li ñu dese rek ku ñu pousse surtout ak Fra ak financement ak Fra loolu moo ñuy empêché ndax bu ñuy bu dee yi def nañu euh, savon ordinaire bi dañ koy liggéey toilette yi dañ koy liggéey savon yi nga xamante ni tey bu ñu la ko joxee nga sangoo ko tey jarul ngay tocc mi ko bo sango ba pare rek solo sa yere dem sa yoon te dalay leral savon yu bax yu baxa baxa baax budé ci affaireu dee lepp ñom dañ koy liggé en tout cas bés bu ngeen fi ñëwaat inshallah di ngeen ñu fekke leneen ah xawma woon i xawma dar dara musuma jang français yalla ak mam day ñoon mi moma fekk ba sama kër jëli ma foofu di ma encouragé ba tay jii mo bind sama ma mëna bind sama tur suñuy bind kër ga ma jël sama bëkk daadi di bind aadama ñu ne ma ye sama doom ne ma yaay dangaa juum aadama benn aala man leen man olofal laa jàng aadama day seex loolu rek laa si bëgg a dama kontaan bu baax baax. <laughs> ay jàmbar fàkk tëdd lañu ñun ay relais communautaire am nañ ci saal bi association relais communautaire dañuy dañuy yëngu si wàllu santé dañuy yëngu si wàllu sécurité bourse familiale bi. ñu ngi yëngu tamit si comme nag suñu mbokk jigéen ñi waxee si si céréale bi ak jus bi saabu yi. eau de javel am nañu tool parc an dañuy bay bi ngay fekkee parc an da nga naan ñii ay góor lañu dana la ñuy liggéey ndax bañ ñu tàllal loxo rek ak bañ tam ku ñu yóbbaale nekk ay jàmbaar bëgg tamit daal daal nit ñi daal gën ñu jàppale bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la suñu mbokk yi wax yépp daal dama doon complété rek pour nga xam ne moom moo xawoon manqué rek ngeen jéggal incha allah. ji toog Maguette Faye du ñuy nuyu ñoom ñëpp waaw ñun daal dañoo kontaan. ndax jàngu bi ñoom tàmmaam ndey xamal nañ ñu bari lu ñu xamul woon waaw sama téléphone xaw ma si woon dara léegi lu ne laay def sama téléphone damay wooteel sama bopp bu ñu ma yónnee wiif mën naa dem retirer sama xaalis sama bopp du ma jox kenn te si jàngu bi laa ko xam boole si li ma gën a neex bu ñu ñu jàngalee ba ñu pare dañuy toog ñoom jël seen temps jënd ataaya ñu toog ñu jàngal ñu wàllu sëy kon ñooñu jiitu ni ñuy seeree suñu kër Nous ñuy seeree suñuy borom kër nu ñuy toppatoo suñuy goro ci koñ bi ba pare jàng bi mag ñi ndaw ñi doo xàmmee mag doo xàmmee ndaw ñëpp dañoo booloo doon Monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie, chères facilitatrices, chères apprenantes, chers invités, à vos titres, rangs et qualités, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette journée phare de la Semaine nationale de l'alphabétisation, abritée par la commune de Anne-Belair.